visite bu njëkk bu njiitu réew mi ba Bassirou Diomaye Faye foofee ca Mauritanie dafay sampaat ay laaj jëm ci lu ñu duppee ay intégration na mu di loo xam ni du lu yees sax daan nañ ko waxtaanee ci jamono indépendance yu colonie yi nga xam ni tubaab yi taxawaloon nañ ko fi li yanwul maanaam moo di leen réewu Afrique yi la ñu jiital ci seen mbir mooy intégration ci wàllum politique bàyyi moomeelug seen bopp ci wàllum aada ak koom-koom ñu jël bëgg sam réew teg ko ci kaw booloo nga xam ni réewum Afrique yi war nañ ko booloo ngir suqaliku juróom benn fukki at ginnaaw indépendance yi fii ñu nemmee koy jafe-jafe ba nëgën yi ci wàllum koom-koom donte ne sax am nay jéego yu ñu teg ci wàllum politique ak koom-koom ay kuréel yu mel ni unité africaine ak CEDEAO amal ko daanaka seetlu bi benn la ba nëgën yi dese nañoo moom suñu bopp ci wàllum culture ci wàllum mbay mii ak ci jumtukaay yi nga xam ni war nañ koo mën a teg ngir suqali suñu réew daanaka saafara ya matul ngir askan wi réewum Afrique yi li ñuy jënd ak jaay seen biir néew na loola boo ko méngaleek li ñuy jënd ak jaay ak réewum tubaab yi loole di gën a indi jafe-jafe ci moom gi ñu war a moom seen bopp ci wàllum la ñuy dundee jot na sëkk nag ñu soppi boobee doxalin njiit réew mi Bassirou Diomaye Faye am na occasion tey jilee ngir teg Sénégal ci yoon woowee daal di dakkal noonee nga xam ni noonee la ko ñu ko fi jiitu doon defee loole di ab chantier bu mag boo xam ni war na ci dugal yoxoom Afrique am na ressources naturelles yi nga xam ni mën na ko may mu sukkali mbay mi sukkali industrie waaye itam bépp beneen secteur boo xam ni soxal na ko nit ñi ñoo ngi fii li ci des rek mooy pas-pas yi nga xam ni njiit yi am nañ ko ngir mën a booloo ak yeneen mu Afrique yi ba mën a suqali seenu koom-koom